mbokk insha allah ñu ngi war a jël tey aaya quatorze ci suuratu raad lahu dacwatu lxaq إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي نيجي sant suñu boroom ci xéewal gi ñu nekkee muy xéewalu dund weeru koor suñu boroom dëppale ñu ci it wërsëgal ñu daje ci ab néegam jël ab téeréem di ko fas yéene jàng loolu ay mbaax la yu muy jagleel ku ko neex ci ay jaamam yàlla mi ñu ko jagleel yàlla nañu ko yàlla nangul kon insha allah ñi ngi war a jël tey lahu daawatul xaq ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كدحور كفيه إلى الماء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كدحور كفيه إلى الماء ليذوق وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom mu ne lahu daawatul xaq ñeel na ko wooteeb dëgg walladina yaduuna min duuni ama ñeneen ñañuy woo gannaaw moom yàlla laa yastajibuuna lahum bi cheyin duñu wuyu ñeel leen ci dara illaa ka baasiti kaffayhi ila almaai xanaa lu dul mel ni ka tàllal ay loxoom jëme ca ndox ma li yabluga faa ngiree ndox ma ñëw jot la nga xam ne mooy gémmiñam ga wa ma huwa bi baalixi doonte ne nekkul di ko mën a jot mukk wa ma du'aau lkaafirina illa fi dalaal nekkul nag woote bi yéeféer ya lu dul ci ak cànkute rek ak réer walillahi yasjudu man fi samawati wal ard dana ñeel yàlla moo koy sujuutal lépp lu nekk ci asamaane ak suuf taw an wa karha ca cooberu ak loo xam ne dañ koo sib wa zilaaluhum bil ghuduwi wal asal seen takkandeer yi it ma ngay sujuutal yàlla ca suba di sujuutal yàlla ca suba yi ak la nga xam ne mooy ngoon ya yëpp qul ma rabbu samawati wal ardi nee leen ma moom kan mooy borom asamaan yeeg suuf qul lillah ne loolu yàlla rek la ñeel qul afattaxastum min dunihi awliya nee leen waaw ndax da ngeen di jàpp gannaaw moom ñu ngeen di féetewoo laa yamlikuuna li anfusihim nafan wala darra ñoo xam ne moomaluñu seen bopp lenn ci njëriñ wala lenn ci lor qul hal yastawi al ama wal basir neel ndax dana yemoo ka ña nga ka nga xamee ni nii ay silmaxa lañu ak ka nga xamee ni nii day doon koy gis am hal tastawi zulumaat wa nuur wala ndax dana yemoo lëndëm ya ak leerug yàlla ga am jaalu lillahi shurakaa xalaqu ka xalqi wala boog dañoo defal yàlla ay bokkaale yoo xam ne ñoom it dañuy bind comme na yàlla di comme ca mbindug yàlla ga fa tashabaha alxalqu alayhim ba sax mu lënt ci ñoom la yàlla bind ak la nga xamee ne ñooñuy loolu lañ bind qul lillah qul lillahu xaaliqu kulli cheyin neel déedéet yàlla day muy aji bind lu mu mën a doon wa huwa alwahidu alqahar mooy kenn ki nga xam ne mooy not lépp jalla wa ala mi ngi noonu mbokk tey jii soo demee ci adduna bi da ngay gis li ëpp ci doomu aadama yi woowu ñu yàlla ñi ngi woo leneen lu dul yàlla soo demee ci yéeféer yi moom tax lu ñuy wax na doon ñooñu dañoo doon ñu amul benn diine ñu ngi noonu temps yi rek maa ngi gis benn vidéo bu nit ñi tasaare day saan fu la ci Inde ñu ngi wane benn nag nag bi ñëw taxaw mbooloo mi ñëw di rang ku ñëw tëdd jàpp ci tànku càmmoñ bi mu yëkkati tànku ndeyjoor bi teg sa kaw dënn borom nag bi nag mi ngi ko téye kooku nga xam ne moo ko tàggat jàngal ko loolu lépp ndeysaan buñ paree raay raay raay dem da ngay gis ñoo xam ne bu nag bi neferee sax dañ koy jël di ko diwoo parce que ñoom loolu la ñuy jaamu nag la ñuy jaamu boo ko gisee dana la yéem trop waaye da nga gis ñoo xam ne ñi ngi jaamu seen moroomu nit ñoo xam ne nooseur saay saay ñu leen di jaamu nag moom nag la muy deful dara almuhim mbokk réer réer rek la borom xam-xam yi dañ naan kii jaamu ab yonent ak kii jaamu ab xaj ñoo yem ci yàlla jalla waala ñu ngi noonu loolu ñu bàyyi ci xel suñu boroom moom dong ngay am kattan ci doomu aadama di ko woo woote ba doon luy jëriñ lahu daawatul xaq keneen ku ñuy woo ci du yàlla suñu borom nee na du leen wuyu ba ci dara ak lu mën a doon jibril alayhi salaam mooy ki gën a tedd ca malaaka yi borom ba ca kaw asamaan ya naka noonu suñu yenente salallahu alayhi wa sallam mooy ki gën a tedd ci jaam yi nekk ci kaw suuf waaye toogal fii naan yaa jibril yaa muhammad yaa jibril yaa muhammad dara lañ la munta jëriñ suñu borom joxe ci benn misaal soo demee techniciens yi dañ koy wax dañ naan un bon schéma vaut mieux que long discours borom bi dañuy misaal rek ñi nga xam ni dañuy woolee leen dudul yàlla nee na mi ngi mel ne waa ji demoon ba siin ndox mi masalan waa ji dem na ci teen ba ñëw na seen ndox maa ngi ne ci biir indiwul la nga xam ne mooy buum indiwul baag xanaa ñu rek tiim to tiim teen bi naan ko ndox jógal ma naan la waay ndox jógal ma naan la waay waaw gars yi bu fa defoon un cent ans quatre dimanche ndax dana tax mu màndi laa du tax mu màndi ndox moom du jóg mukk di ñëw dugg sa gémmiñ suñu borom it nee na koo yaakaar di ko woo keneen ku dul yàlla noonu la mel ñu ngi noonu borom bi nag dañuy wax ni moom moo yor pouvoir bu mat la sëkk ci ay jaamam nee na dana ko sujuutal ci sujuutal yàlla mooy wommatul yàlla lépp li nekk ci kaw asamaan yi te loolu mi ngi noonu malaaka ya dañuy sujuutal suñu borom wa shams wal qamar wa nujum lépp lu nekk ci ko asamaan yi suñu borom nee na ñi ngi sujuutal yàlla wommatul yàlla nangul yàlla waaye it ñoon ñu koy sujuutale ci coobarewu noo it lañ koy sujuutale ci loo xam ne neexu leen mbokk yéeféer mi ngi wommatul yàlla neex na ko neexu ko ma ko bundi yéeféer xanaa du yàlla kuy màggal yéeféer yàlla kuy wërsëgal yéeféer yàlla kuy feebaral yéeféer yàlla kuy rey yéeféer yàlla mu ngi noonu suñu borom yàlla mooy dogal ci jaamam yi lu ko neex imma nga nangul ko ci sa xol topp ay ndigalam wala nga nangul ko say jëmm muy def ci yow lu ko neex mi ngi noonu loo xam ne mënuloo ci dara mi ngi noonu tey jii suñu borom yàlla kenn mënul togg mujj rek nga ne de ah de damay rebellé wu man daal jeune laa de vingt cinq ans dootuma màgg fii laay yem ndax mën na nekk déedéet suñu borom moo lay kii la not di la yóbbu ba fu ko neex taw an aw karaha borom bi mu ne xoolal seen takk ndeer yi bu suba jant bi fenk takk ndeer yépp jëm sow bu jant ba demee di so takk ndeer yépp jëm la nga xam ne mooy penku loolu mbokk benn misaal la ca rek te mooy doomu aadama boo ko miinee soo gisee takk ndeeram xàmmee ko borom boobu nag di wax julit ñi ñu laaj yéefiri laaj yii laaj bi jëkk mooy kan mooy borom asamaan yi ak suuf boo ko loolu boo ko laajoon ci siècle bi passé daanaka ñuy dund ci kaw suuf yëpp daan dëppoo ci la ne kii moom asamaan yi suuf mooy yàlla ngi noonu xatta indi yu dof yooyu ma lay wax sànq da ngay gis ko miin kooku nga xam ne mooy zakar na zakar night alors maa ngi ci gis mu ci waxtaan ak kenn ci seen kilifa yi mu naan ko yéen da ngeen a gëm yàlla ñun gëm nañ yàlla yàlla moo bind asamaan ak suuf mu ne waaw li ngeen tax lu tax ngeen koy bokkaale lu nekk nag mu ne waaw yàlla il faut ngay am luy attirer sa attention ci moom parce que comme yàlla gisoo ko ah loolu nag moo tax ngay am loo koy jël mu mu mu daal di lay représenter yàlla noonu lañ ko gisee suñ benn xale boo xam ne nii mi soriwul jàkk ji lool nee na am na benn client bu koy fournir en Inde c'est un milliardaire mais nee na dàll lay jaamu gars yi xam ngeen dàll dàll gandam dàll la yor moom la def ci la nga xam ne société bi su xëysee balaa def dara dana dem sukk ci dàll bi mi ngi ko defal benn cage en or boo xam ne lu na def na ko ci ay lumière te lay sukk di tagg dàll bi di tagg dàll bi gannaaw ba ñaan ñaan ñaan ñaan doog a jóg gis ngeen loolu mbokk da ngay gis ne soo soo ko laajoon mi kan moo créé asamaan suuf képp mën na mun la yàlla naam donte ne nag biñ ñëwee ba ci siècle bi ñu dund juif yi bon yi bëgg a not adduna bi ca la ñu développé li ñuy tuddee athéisme pur et dur bi nga xam ne dañ ñaan yàlla amul ñu tàggal ay Karl Marx ay Lénine ay dof yooyu nga xam ne dof nañ dofloo nañ adduna bi ñu daal di décréter ne la religion c'est l'opium du peuple diine nit ñee ko fi créé woon rek pour not leen mais diine amul yàlla amul loolee mbokk da ngay gis ne yàggul ci kaw suuf waaye mboolem yéeféer yi jëkk lan moo xewoon boo leen laajoon kan moo bind asamaan yeeg suuf lañ lay tontu mooy yàlla moo tax suñu borom jiitu leen ne qulillah léegi nag suñu borom mu ne waaw ndax yàlla moom nga xam ne mooy bind lu mu mën a doon ndax da ngeen di jël ñoo xam ne di ko yaakaar ca ñooñu mënul leen indil njëriñ mënu leen indil ñu lor ndax kooku nga yaakaar yàllaa ko bind comme yàllaa ko bind luy njëriñ ci moom yàllaa ko ci def kon ku mel noonu lan la la mën a wëlbatikoo di la jëriñ gannaaw ba suñu borom mu ne posé leen ñaareelu question ndax tey ay silmaxa bu ñu àndoon daan yi nag koy gis téeméeri silmaxa nga dajale leen ndax yow mën nañu kenn koy gis ñu ànd ci yoon bu ñu ma toon mille sax kenn ki gis mu leen liggéey di am déet kon ki nga xam ne xolom daa gumba ba gisul téereb yàlla bi koo koy du mën a yem ak ki yàlla leeral xolom ba mu xàmmee dëgg ak fen laaj leen ba tey ndax ay lëndëm dana yem ak leer waa ji nekk ci ay lëndëm yu tegaloo mi ngi noonu zulumaatu ba'duha fawqa ba'd ndax dana yem ak ki nekk ci ak leer loolu it ba tey abadan mbokk julit doomu aadama ak leer moo koy permettre mu mën a gis say bët lu mu neex neex neex soo nekkee ci lëndëm total mënoo gis dara gis balaa am bët neex li mu yër am ñu ngi noonu kon loolu mënuñoo yem looloo tax mu ne moom mooy féetewoo ñu baax ñi di leen génn ci lëndëm yi di leen yóbbu ci leer gi gannaaw ba sunu borom laajaat ne waaw ndax dañuy wutal yàlla ay bokkaale yoo xam ne nii kat la tax ñu leen di bokkaale mooy ñoom dañoo bind comme li yàlla bind kii taxoo naan man suñ diw laa yaakaar àdduna ak alaxira naam parce que bi yàlla bindee nag yi suñ diw ma bind xarak bay bu yàlla bindee jant bi suñ diw ma bind weer ak biddiw bu yàlla defaree suuf suñ diw moo tàllal géej ndax am nañu lenn loo xam ne nii lu ñu jàpp ne keneen ku dul yàlla bind na ko ba tax nit ñi yaakaar ne ñooñu mën nañ leen jëriñ wala mën nañ leen lor suñ borom mu ne déedéet allahu mooy xaaliqu kulli shay yàlla moo bind lu mu mën a doon te it mbokk xam leen doomu aadama lim man mooy assemblée waaye yàlla muy aji bind kan moo bind portable allah jalla wa ala mboolem matière première yi ko composé yëpp scientifique yi ñoo ngi ko jële ci suufa si yàlla si manipuler ko defar ca lañ ca war a defar composé ko mu génne portable ñu composé leneen mu génne oto leneen génne avion mi ngi noonu waaye aji bind ji kenn la loolu it moo tax ba ñu moytu la nga xamee ne ni mooy lu jëm ci wàllu bind comme ni yàlla di bindee mboole mi borom xam-xam dëppoo nañu ci ne ki nga xam ne dafay bind ay nataal nataal yooyu am takkandeer muy statue yi ak yi ngeen di romb ci suñu ñawukaay yi dañ koy doogu indi daanañ ko suturaal tey nag dañuy wane jigéen bu def yaramu neen ween yi na fodd képp ku ci xam téyër bu mel noonu nga la way na ko laay biir loolu xaram la ci kaw xaram loolu mbokk borom xam-xam yépp dëppoo nañ ne dafa xaram mu des nag loo xam ne dañ koo dessin dañ koo dessin ca amul takk ndeer loolu it da ngay gis ne li ëpp ci ñoom dañ ne waa ji dessin la nga xam ne mooy melokaanu lu am ruux dana dugg ci xadis bi yeneen ci bàyyi salaam di wax ne képp ku bind dara yowmal qiyaama suñu borom dana la woo ne la li de ci àdduna yaa ko bindoon léegi nag li ko manqué muy ruux def ci ak ruux dañ la ci li la mbugal naan di def ci ruux li la mbugal naan di def ci ruux ci doo ci bañ a def ruux jamais loolee kon gàllawaay suñ jeune dessinateurs yi nañu bàyyi xel loolu nañuy desee ay ay paysage ay géej ak ay garab ak ay fleur ak ay tappeeg lu demee noonu mais lépp loo xam ne day am ruux gàllawaay moytu leen di ko di ko dessiner rawatina li ñuy tuddee art abstrait nga xam ne ay façon nit lañ yoo xam ne kenn xamul nu mel yooyu ngalawaay nañ ko bàyyi ca yàlla tax mu des nag beneen problème mooy problème mu photographie ndax waa ji nga xam ne photographie daf ñoo dab daanaka kaw suuf dafa ko fi parce que lu mat deux siècles léegi nag borom xam-xam yi wuute nañ ci ndax photographie wala caméra wala lu mën a doon dana dugg ci ki nga xam ne dafay jël dafay bind comme ni yàlla di bindee loole am na ci borom xam-xam yoo xam ne dañ ko boole ak lu jëkk la benn la ki photo ak ki dessiné ak ki yett c'est la même chose bokk na ci ñi mu jóor ku mel ne cheikh nasiruddin albani rahimahullah musul nangu ko ko photo musul nangu ko ko filmé ñu ngi noonu xanaa lu dul loo xam ne mënta ñàkk ci ay passeport am na yeneen borom xam-xam yoo xam ne ñoom dañ jàpp ne déedéet photographe bi wala caméraman bi bindul bindug yàlla gi la jël di ko wone naam bokk na ci ñooñu ko mel ne Cheikh Ousaymin ci ñi mujjoon waaye mu des ñun beneen problème boo xam ne ni it problème la mbokk tey jii dañuy gis photographe bi jël mën na jël fat caam mu ñun kukk ñaaw mel ni bukki mais mën nañ ko manipuler ba mu xees pecc rafetaat am déet mbokk ko mel noonu da ngay gis ne yaa ngi créé loolu mooy mooy mbir bi mooy avec tey informatique mboolem la nga xam ne mooy mbindaafu la borom bi subhanahu wa taala nit ñi mën nañ ko manipuler soppi ko nam neexee ala kulli xaal moo tax liñ ci doon wax mooy war nañu moytu lu jëm ci photo yaag caméra maag yépp lu dul loo xam ni jàpp nañ ne xikma mi ngi ci gannaawam njëriñ la buy jàngale ci wàllu diini wala luy moytuloo danger te it bu dee dañ koy jëlit ñu bañ caa yokk leneen lu dul capté ko na ko yàlla bindee jottalee ko na ko yàlla bindee bañ caa def yeneen yeneen mbir yoo xam ne nii xale yi moo mu yi nekk Amérique Amérique kii nekk Occident xam nañ ci dara aka bëri ñu ci takk ay Fat Thiam ak Fat Ndiaye ci ay vidéo bis bu ñu ñëwee Sénégal bañ ne leen kii ngeen takk ñu waat waat ne déedéet kii du kuñ leen wonoon ala kulli xaal mbokk mi ngi noonu rawatina bi ñu yàlla nattoo lu ñuy tëddaay snab ak ay yu kenn xamul yooyu ñu bàyyi xel kon ci ne yàlla mooy aji bind dañ ko war a bàyyi bind gi jalla wa ala moo tax borom boobu ni mooy bind lu mën a doon ca moom mooy kenn ki amul ku ko ñaareel lu mën a doon nag moo ko bind mi peer du loolu la jàngoon démb day min kulli shay'in ah min kulli samarat jaala min min minha zawjayni isnayni wax di feneen min kulli shay'in xalaqna zawjayni moom dong mooy alwaahid keneen ku dul moom immaa nga ne góor wala nga nekk jigéen mi ngi noonu al wahid al qahhar moo not ñëpp nous sommes tey en 2019 en 1919 ana buur yi jiite woon adduna bi ana généraux ya ana milliardaires ya ana ñu doon cëppi cëppi yi ci kaw suuf en 1919 rek laa wax siècle bi passé ana ñu tey al qahhar nottal leen ñoom ñëpp tàbbal ci biir suuf am déet loolu kon mbokk mi ngi noonu jëll wa ala yow mi ko nangul nag mooy da nga koy nangul taw an ak sa coobari mi ngi noonu cheikh ousmane fasaalat awdiyatum bi qadariha mu daa di fees xur yépp xur ya ca seen kemtalay kattan xur wu nekk ma nga fees ak la nga xamee ni ni mooy lam man jël ci ndox faxtamala saylu zabada rabiya noonu la yenoo la nga xam ne mooy wal ma wal mooy ndox ma nga xam ne nag mooy continuer di tasaaroo ndax bu xur ba fees rek ndox ma moom day continuer muy wal ma zabad mooy la nga xam ne moom lay féete la ci kaw wala fi di ko wax ab puuke mooy salte yaag poussière baag yépp rabia boo xam ne day kawe ci kaw ndox ma ñi ngi noonu taxtamala sayl mu daal di yenu wal ma zabadan la nga xam ne mooy salte ya rabiyan yoo xam ne day féete ci kaw wa mimma yuqiduna alayhi fi nnar da nga koy gisit ca lañuy taal ca kaw safara ya tëgg yi di ko def ibtigaa xiliyatin aw mataa ñu cay sàkku ay takkaay wala di ca sàkku ay jëfandukaay ay istansi lu ñuy jëfandikoo zabadun mislu moom it bu fuuree da nga gis mu am loo xam ne ni puurit bu mel noonu nga di féete kaw kazalika yadribu allahu alxaqa walbatil nii la yàlla dóori misaal diggante dëgg ak fen fa amma zabad bu dee na loolu nga xam ne mooy puurit moomu puuke boobu fa yazhabu jufaa moom day dem doon loo xam ne luy beru la daa di jaar ca kaw dem wa amma ma yanfa'u nas waaye bu dee lay jëriñ nit ña fa yamkusu fi l ard moom day sax ci suuf sa kazalika yadribu allahu al amsal nii la yàlla di dóori ay misaal lilladina stajabu li rabbihim alxusna dana ñeel ñi wuy si seen boroom la nga xam ne mooy njëkk ga walladina lam yastajibu la ña nga xam ne nag wuy siwuñu seen boroom law anna lahum ma fi l ardi jamia bu doon def leen a ñeel li nekk ci kaw suuf mboola seen wa mislahu ma ah ñu am lu tol noonu mu ànd ak moom laftadaw bihi daañ ko bëgg a jotoo ulaika lahum suul xisaab ñooñu day dana leen ñeel la gën a ñaaw ci régler bu ñuy régler seen i mbir yowmal qiyaama wa ma'waahum jahannam seen daluwaay ëllëg mooy jahannam wa bi'sal mihaad ak a ban lu ñuy laytaayoo muy jahannam mi ngi noonu mbokk suñu boroom ba ñuy dal saar bi ñu tuddee suratu raad démb jàngal nañu mu ne yëreekumul barq dañu woon melax bi xawfan wa tamaa mu yunshihu sahaba siqaal mooy sos niir yaa nga diis gannaaw ba yusabbi u raad dënnu ko daal di dóor yursulu sawaiq mooy yinni safara ba dara desul woon lu dul moo ab taw nag moo tax tey mu ne anzala min assamai maa yàlla moo wàcce ndox kaw asamaan mbokk ndox bu ñëwee da ngay gis xur wu nekk day gàddu la mën a am yàlla defal ñu ay xur yu ndaw defal ñu ay lakk defal ñu ay dex yoo xam ne day garde ndox mi waa ndakaaru yàlla may ñu leen lu ñuy tuddee lac de Guiers bu nekk fa la ca kër Momar Sarr suñu borom def ko loo xam ni dafay jël lu bari waaye nag ba taw ba continuer ba mbir ma fees rek wal ma moom day continuer leen loolu suñu borom wax ni xur yi dañuy jël seen kemtalal kattan loolu diini lislaam noonu la demee heure bu yonente ñëw waaraate wala borom xam-xam ñëw waaraate nit ñi seen xol yi muñu am na ñuy gaaw a comprendre jël lu bari ci diini gëm ko topp ko am na ñoo xam ne seen xol tuuti lañ ca mën a dégg lañ ca mën a dékku loolu mooy borom ah la nga xam ni mooy xur yu nga xam ni dafa néew mi ngi noonu ah suñu borom yàlla subhanahu wa taala di misaal nag dëgg ba ànd ak fen naka lay demee nee na ni ngay gisee ne tey ji bu tawee nga gis ndox mi di daw pot bu mu romb yóbbaale su seet bu mu yóbbaale boo demee ba à la fin boo ñëwee doo gis ndox looy gis poussière bi salte yi ngay gis loolu mooy zabat mi ngi noonu ñeneen noonu lay demee mu ne tey jii boo demoon ci tëgg bi nga ñu jox ko or mu dugal ko ci seen foofu ñuy toggee togg or bi pour ëllëg mënoon ko defal chaîne wala lam bu koy togg day fuur ndax da nga gis or déedéet bu dee xaalis déedéet doo gis xaalis mi ngi noonu suñ càmp nga gën a mën a dégg yéen ñi attaaya tey di fuural attaaya ji boo fuuralee fuural bu yàggee boo ñëwee ci kaw looy gis fuurit ana attaay doo gis attaay attaay ci suuf waaye bu yàggee ni muy demee bu yàggee ni muy demee gis nga ndox mais salte yi nekk ci kawam bu yàggee rek salte bi day jël lii gauche bi jël droite poussière bi def nii ndox ma moom daal di fay sax loolu la suñu borom di wax naan zabat ba day dem ndox ma moo fay sax te mooy jëriñ nit ñi naka noonu tëgg bi bu bu bu lakkee or bi togg ko togg ko ak xaalis bi wala bi teex bi loolu mën a doon day fuur fuur mais bu ko tegee tuuti rek puurit bi deñ nga daal di gis nag la nga xam ne mooy cosaanu métal ba or la wala xaalis waa ji doon attaayit naka noonu boo fuuralee kaas mu fuur boo ko tegee fi rek nga xool quelques heures boo ñëwee da ngay fekk dog na fuurit bi dem na attaay bi des ci loolu la suñu borom di wax dëgg bu àndee buy ñëwee fen day ñëw ci kawam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee di woote waa Makka daal di koy topp ñii na dof la ñii na njabar la ñii na day réy réylu ñi ne fen imaam yi jëkkee lay nettali coow li na kurru ñu bari gëmuñu ko ñu néew ko gëm waaye gis nga bañ demee ba dem ba dem lan la suñu borom mujjee mooy zawat boobu nga xam ne moo doon bëgg a suul dëgg lépp suñu borom yàlla maase la ko te mooy atum juróom ñetteel ma ca gàddaay ga yonent bi ñëw nu ubbi makka fekkoon na fa ñetti téeméer ak juróom benn fukk ci ay xërëm 360 xërëm yépp mu maase la ko tasaare ko mabb xërëm yi ci gënoon a màgg di hubal yónnee ci xërëm yi tasaaroo woon uzza manaata ak laat ñoom ñëpp mu yónnee ay délégation ñu dem maasale yépp boobaag léegi ça fait quatorze siècle boobaag léegi la nga xam ne mooy presqu'île arabique boobu kenn jaamoote fa xërëm loolu tax yonent bi alayhi salaam keroog fatxu makka bi mu ñëwee lu mu doon wax jaa al xaq wa zahaqa al batil inna al batila kaana zahuqa dëgg ñëw na neen sànku na neen luy dem la moom la borom bi di wax naan fa ama zabad fa yazhab jufaa day dem daal di féete fële ñu ngi noonu lii jëriñ nit ñi sax lii nag la borom bi di nekkee diggante dëgg ak fen nga la way yoon nekk ci dëgg saxal rek mën na am coow topp la nit ñi lu ne dañ la ko yekk lu ne dañ la ko wax mais yow xam nga ne yaa nekk ci dëgg nangul rek nga muñ lu mu yàgg-yàgg si dëgg googu may sax borom bi ne gis nga ñi nga xam ne dañoo wuy si seen borom ñu mel noonu day alxusna mi ngi leen di xaar te mooy aljanna alxusna la gën a baax bokk mooy aljanna ñan la ñeel li lazina istajabu li rabbihim mooy ñi wuy ji seen borom suñu borom nee na ida saalaka ibadi anni fa inni qarib falyastajibu li ngal la waay samay jàmm ñu may leen laaj yow yeneen ci ne leen ku leen jege la ngal la waay nañ ma wuy si nu ñuy wuyjee yàlla يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال لبيك اللهم لبيك نينون يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا لبيك اللهم لبيك تموي بيب ووت بو خامن يالا ووت نلكو تي جولي تي ات يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام lepp lu la yàlla woo pour digal la lu la yàlla woo pour tere la nga woo gis sa borom soo demee ci téereb yàlla bi am na ci quatre-vingt-huit yaa ayuha allazina amanu mi ngi noonu su ko defee nga wuy ji sa borom ñooñu wuy ji seen borom nag àjjana mi ngi leen di xaar amma ñi nga xam ne wuy ji wuñu seen borom beneen woote lañ wuyu ak bu mën a doon bu doon te ne amoon nañ li nekk ci kaw suuf yépp dépensé ko daanañ bëgg yowmal qiyaama yàlla jël ko leneen lu ñu am ñu dolli ko te ngir ñu mucc ci mbugal mu yàlla ñooñu dañ leen mbugal dañ leen xisaab xisaab bu bon moo ko xisaab bu bon mooy lan yàlla xool li nga mës a def ci kaw suuf yépp ku ko yàlla defal dana la dana la mbugal mbugal mu tar moo tax suñu borom mu ni ñooñu day safara mooy seen wàccuwaay di jahannam mi ngi noonu suñuy borom subhanahu wa taala ne ak a bon lu nit di lay tayewoo mooy yaay buy defaral doomam berso la koy defar ba mu baax ba dara bañ ko caa lor mu doog ko caa tëral am naa koo xam ne yow sawara muy sa berso la la fay nar a fekk ci mbugal ne kenn xamul nu mu toll moo tax suñu borom ne ak bon la ñuy lay taayoo mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أغنى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يعصون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وآمنوا
fiikum suñu borom mu ni afa man yaalamu amu ndax ki nga xam ne xam ne ni annama unzila ilayka min rabbika alxaq ne li nga xam ne dañ koo wàcce ci yow mu bawoo sa boroom lool rek kay dëgg kaman huwa ama ndax dana yem ak koo xam ni dafa silmaxa innama yatazakkaru ulul albaab dana nekk day di fàttaliku ña nga xam ne mooy borom xel yu ñor ya borom xel yu mat ya alazina yuufuuna bi ahdillah ñooñu nga xam ne dañuy matal jugub yàlla ba wala yanquduuna almisaaq te ñoom day duñu nekk mukk di firi la nga xam ne mooy kóllëre gañ fasante woon walazina yasiluuna ma amara allahu bihi an yuusal ak ñi nga xam ne day dañuy jokk la yàlla subhanahu wa taala santaane ñu jokk ko wa yaxshawna rabbahum dañuy ragal seen boroom wa yaxaafuuna suu al azab te itamit waaw wa ya- wa yaxaafuuna suu al xisaab te dañuy ragal it la nga xam ne mooy lu ñaaw ci règle ba ñu leen di règle yowm alqiyaam walladina sabaru btigaa wajhi rabbihim bokk na ca it ñi nga xam ne dañuy muñ ngir sàkku seen kanamuk boroom wa aqaamu salaa ñu taxawal julli wa anfaqu mimma razaqnaahum ñuy dépensé it ca lañ leen wërsëgal sirran wa alaniya ñu koy dépensé ci secret ci lu ñuy nëbb ak loo xam ne lu ñuy feeñal la wa yadra'uuna bil xasanati sayyi'a dañuy dàq it lu baax la ñuy jël di ko dàqe lépp lu bon lu leen def ulaika lahum uqba daar ñoom de dana leen ñeen mujj kër ga jannaatu adn àjjana sax ba faw la yadxuluunaha yoo xam ne nit ñi daan ci dugg wa man salaha min abaihim ak képp koo xam ne yiw na baax na ca seeni baay wa azwaajihim ak seeni soxna wa zurriyaatihim ak seen njaboot ya walmalaikatu yadxuluuna alayhim min kulli baab malaaka yaa ngay dugg ci ñoom di jóge ci bépp bunt di leen wax salaamun alaykum ay mucc day ànd na ak yéen mucc yàlla nekk ci yéen bima sabartum ci li nga xamee ne muñoon ngeen ko fa ni'ma uqba daar ak a baax waay mu jëkkër gi mi ngi noonu mbokk suñu boroom kon day wax fii rek ne ndax ki xam ni li ñu wàccee ci yeneen ci yàlla bi mu bawoo ci boroomam ca muy alquran alquran bi ñu tiim mbokk ci yàlla la jógee ci kan la ko yàlla wàcce ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki xam ni lii rek mooy dëgg mi ngi noonu ndax dana yem ak koo xam ne dafa silmaxa nanguwul gis loolu nanguwul dégg loolu ca mbokk jullit ngallawaay xamal ne yem ak yéeféer ngallawaay su ndawi jullit ñi xam leen ne xel munta nangu nga ànd ak gumba ci yoon daal di ñëw féete ko gannaaw naan ko demal jiite ma xel mënul nangu loolu yow mi gis ko yaa war a jiite du xool fu ngeen di jàdd ak fu ngeen di war a moytu loolu yow ndawal julit suñu borom nee na yaay aji gis silmaxa yéeféer la kon bul topp yéeféer bul nuru nuru lu yéeféer bul doon koo xame ne nii da ngay doon al toppe ci yéeféer lillahi al izza wa li rasulihi wa lil mu'minin personnalité yi suñu borom nee na moo ko moom ak yonentam ak julit julit yaa war a nekk kuy woo yéeféer mais war a nekk kuy altopp yéeféer hal yastawi al ama wal basir mi ngi noonu suñu borom subhanahu wa taala mu ne borom xel yi rek ñooy doon ñuy xalaat al albaab mooy ñi nga xam ne seen xel mat na soo ñëwee ci téere bi yàlla bi lu jëm ci wàllu aql yàlla dana ko wax lu ëpp trois cent fois amma ulul albaab yàlla fukki yoon ak juróom benn la ko wax ndax mooy ñi seen xel mat ba lépp lu ñu dugg seen njëriñ moo ci nekk lépp lu leen di lor duñ ko jege suñu borom nee na ñooñu rek ñuy fàttaliku waaye ñooñu mooy ñan ndax mbokk borom xel yi mooy architecte yi ndax mooy scientifique yi naawal fusée yi laa mbokk ñooñu dañuy ay découverte rek lañ def waaye borom xel mbokk mooy ki xam lu tax yàlla indi ko ci kaw suuf borom xel mbokk mooy ki xam lan la war a def ci kaw suuf ak bu fi jógee fan la jëm kooku mooy borom xel ñooñu la suñu borom wax ne mooy ñi nga xam ne dañuy matal digu bi yàlla bi te duñu firi benn kóllëre mbokk yàlla la gën a màgg lim diggante ak ñun moo ñu jaamu ko bañ ko bokkaale ak dara mu farataal ci ñun ñu fàttali ko suñu bopp bi sept fois par jour yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in léegi lañ ko diggante ak yàlla ci tàkkusaan léegi bu jant bu soo ñu digal ko diggante ko suñu borom loolu nga diggante ak sa borom heure boo demee di wax nan yàlla ak rek yow firi nga kóllëre googee heure bu ne yàlla ak kak ak rek xamal ne firi nga kóllëre googu mi ngi noonu diggu bi yàlla bi dañ koy matal bu dee ne julli yaa mat koor ya mat aj ya mat loolu lépp diglu yàlla diggante ak ñun cay du ñu firi benn kóllëre bokk na ci mbokku firi kóllëre la ca bon mooy la nga fasante ak sa borom nga firi ko waaye la nga fasante ak say morom yonent bi alei salaam nee na naafiq ay mandargaam ñett la bokk na ca bu waxee day fen bu diggee day wor buñ ko wóoloo mu mu mu mu daal di wor mi ngi noonu yii yépp bokk julit du mel noonu julit du felle dindi kóllëre pacte yam def contrat bu mu signante ak lu mu mën a doon du dem mukk di ko jalgati ñaar muy benn nga juróom ñetti melokaan lañu borom di wax fii ñaareelu melokaan bi suñu borom mu ne wala zina yasiluuna ma amara allah bi an yusal ñoom dañuy jokk la yàlla sant ñu jokk ko mbokk yàlla dafa bëgg suñ digganteeg moom ñu jokk ko ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila jaam bi dafa war a jokkoog boroomam di kër këri pour am ngërëmal yàlla jege boroomam amma bu dummóoyu diine yàlla ji dagg nga sa diggante ak sa borom yàlla daa bëgg ñu jokkale ko ak yonentam gëm ko comme niñ gëme ak yonentam ba ñu bokk min alladhina yufarriquna bayna allahi wa rasuli waaye noonu it mbokk la yàlla santaane ne nañ jokk mbokk gi ñi nga noonu nañ jokk mbokk gi da ca gën a am solo mooy mbokku diine gi mu ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu yéen ñëpp ànd leen ci bumug yàlla bu leen teqalikoo mu bokk ci it mbokkub deret gi ñu yàlla dogal nga bokk ak ñoom mën naa am seen i niveau bokkul yow milliardaire nga ñoom ay pauvre lañu yow intellectuel nga ñoom xamuñu dara yow ila axiri ala kulli xaal du tee maadaama yàlla dogal sa mbokk la ngalla waay jokk ko jokk mbokk day tax yàlla jokk la dagg mbokk day tax yàlla dagg la suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne dañuy nekkit di ragal seen borom yaxshawna rabbahum al xashiya mooy ragal gu ànd ak màggal suñu borom dañ koy ragal ànd koog màggal xemmeem jëm ci moom bokkul ak ni ngay ragal ak gaynde gaynde da nga koy ragal mooy doo ko màggal ñi ngi noonu looloo tax juri dafa war a melokaana melokaan boobu donte ne yonent bi alayhi salaam nee na bokk na mandarga bi yàlla yi jëkk a jël ci jullit ñi mooy alxushuu ba da ngay dem ci mbooloo jullit ñu bari doo fa fekk alxaashi koo xam ne day toroxlul boroomam ci it rawatina suñ jamonoy tey jii mbokk muy jamonoy portable jamonoy internet nit ñi ils sont intoxiqués ci ay façon film yu dul jeex ay xabaar yu dul jeex ay kii dul jeex mbokk yooyu day lëndëmal xol tax ba doomu aadama yi nañ gaawoon a jooye ci yàlla tax gaawoon a toroxlu ci yàlla tax loolu da koy lëndëmal waaye jullit ñi moom yaxshawna rabbahum soo ci munta dëkkit lu mu bon bon heure bay julli alazina hum fi salatihim xaashi'un nga jéem a toroxlu sa julli waaye it yaxaafuuna suu'a alxisaab ragal nañu it ëllëg ñu ñëw ci kanamu borom bi ñu régler leen fa régler bu ñaaw régler bu ñaaw mooy lan moo di ne jalgati nga sa digganteeg sa boroom ba ñu xool sa mbir yépp jalgati nga sa diggante ak say moroom ba ñu jël say tuyaaba yépp jox leen wëlbati ko jël say bakkaar jël ñoom seeni bakkaar xëpp la comme naka yonent bi alayhi salaam waxee ci muflis yawmal qiyaama te ne képp koo xam ni yàlla dana indi ab jaam yawmal qiyaama ñu xool julli yi baax na koor baax na aj na zakat na waaye nag bi mu nekk ci kaw suuf lekk na alalu kii tuur deretu kii yàq deru kii ila axiri ñooñu rang ñuy jël ci tuyaaba yi di leen jox ba tuyaaba yi jeex ñu jël bàkkaaru gaa yi di leen jox gannaaw ba ñu yóbbu ko sawara loolu moo tax ki ragal alxisaab yowmul xisaab yowmal qiyaama ngal la waaye dana moytu xool digganteem ak boroomam waaye xool digganteem ak ay moromam bañ leen a tooñ yaakaar naa fu ñu waxee suul xisaab bilal caam ñun ñëpp sun am ku sunu xel dem muy góor gi draman jàlloo yal na yàlla jéggal ko ci yaram ko maa ngi leen koy fàttali ne moo ñu fekk fii ñu yor benn néeg su ndaw suuf gi amul dara kaw dañuy julli jàkkaarloog asamaan mu ànd ak ñun fii julli gannaaw ba mu ne xaaral bu ma demee France ba mu demee France la ñu yónni ardoise yi njëkk a teg ci jàkka ji yàlla dogalit biñ tabaxee jàkka ji ba mel ni moo ko jëkk a peinture ci alalam yal na yàlla jéggal ko yërëm ko dañ daan toog ak ñun lu bari maa ngi ñoom Bilal Thiam lan la ñu daan wax bu dul woon ak yow mun xisaab ma nekk milliardaire lii la ñu daan wax nee na yàlla jaaral na ko ci Europe dafay plus de 30 ans en Europe nee na bu dul woon ak ragal yow mun xisaab kon milliardaire lay doon waaye mbokk naka noonu mel leen noonu ragal leen su ol xisaab alors lu àdduna loo ci mën a dajale yowmal qiyaama ñaari question mi ngi lay xaar nga looy bu ko fàtte mooy lii foo ko jële woon ak lii foo ko dépensé loolu mi ngi noonu su ol xisaab lii foo ko jële lii foo ko dépensé suñu borom yàlla subhanahu wa taala it ne walazina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim ñii nar a dëkke àjjana mooy ñii muñ ngir seen borom yàlla gërëm leen mbokk muñ bi gën a màgg ci muñ yi mooy muñ ma def santaane yi ay suñ caam yi mu tëdd ba cinq heures du matin dégg asalaatu xayru min annawm fekk yaa ngi sa digg nelaw yaa ngi sonn sedd na yaa ngi sa suufu mbàjj mbokk nga sànni mbàjj bi dem ci douche bi de sangu dox ci lëndëm gi dem ca jàkka ja ku muñul mënuloo ko weeru koor bi mbokk neexul xëy na ko nag Dakar xamul luy koor sax xëy laajal ñu jóge Linguère laajal ñu jóge Bakel laajal ñu jóge feneen nga xëy suba ba ngoon lekkoo naanu mbokk ak tàngoor yooyu ku muñul doo ko def mboolem jaamu yàlla yi pour mu sell fokk nga muñ alal dafa neex ci bakkan jël sa alal di ko génne zakat loolu lépp neexul ñaareelu muñ bi mooy muñ bàkkaar yi njaaloo mbokk yàlla ko araamal waaye neex na lool xale bu jigéen bu rafet ñëw jox la boppam loolu koy neex na waaye nag muñ ko ci yàlla tax comme na ko saar biñ génn di suuratu yusuf gannaaw ba alal joo yàqul ay millions ngi ni nga mën caa jël dem noosi loolu koy neex na waaye nga muñ ko ci yàlla tax lépp loo xame ni nii ak moy la nga muñ ko ci yàlla tax ñetteelu muñ bi nag mooy muñ dogal yi yàlla teg ci yow yàlla teg sa bakkan ci sa njaboot ci sa alal imma wax yu ñaaw yu ñu lay wax wala feebar yu lay dal wala alal ju réer wala njaboot gu dey matériel yu yàqu yii yépp ay nattu la yoo xam ni julit moom da koy muñ sàkku ci ngërëmal yàlla jalla wa ala borom bi subhanahu wa taala it daal di cay teg ba tey ne mooy ñi nga xam ne dañuy taxawal julli yàlla waxul ñiy julli yàlla dana ñiy taxawal julli allah waay bokkul tey bàyyi caam day ngénte ñu dem daal di commandé benn bâche waaye bâche bi bu ñëwee fi ko charrette bi teg ñu teg ko foofu du tax mu fegal leen jant du tax mu fegal leen ab taw di il faut ñu taxawal ko de ah kay daañu koy taxawal mu doog a jëriñ julli it naka noonu dafa am ay base yu ñu koy taxawal pour mu doog a jëriñ base bu njëkk bi na waxtu wi jot boo ko defee ah waxtu bi baaxul boo bàyyee ba waxtu yu paase nga def ko baaxul laab gi mooy beneen pays la ci encore sutural awla beneen pays la ci encore nga yii na bu sell bi beneen pays la ci encore toroxlu bi pays la ci encore lii mbokk mooy taxawal julli aqamu salaa li la yàlla wërsëgal it nga jël ca yàlla waxul li ma leen wërsëgal ngeen joxe ko waaye ngeen jël ca mimma razaqnaakum razaqnaahum te loolu mbokk la ci jiitu mooy zakat lan mooy zakat ki ëpp lu muy génne zakat mooy baykat bi te yàlla nee na ko jëlal fukk fukki paar def ko tool bi juróom-ñeenti yóbbul sa kër benn bi ngay jox miskin yi yow commerçant bi jëfandikoo xaalis suñu borom ne la yow diviser par 40 def ko 40 part ah benn part bi ngay jox ñaka yeyoo li ci des yóbbul sa kër loolee mbokk yi da ngay gis ni mbir la boo xam ne suñu borom yàlla nee na ñooñu mooy ñi naroo yeyoo aljanna loolu nag sunu borom mu ne ci yelu ak lu feeñ bu dee loo jox ay faqir la gën mooy nga nëbb ko bu dee ne loo xam ni it ay islam woote ay projet wala yu deme noonu loolee la nga cay def nit ñi xam ne yaa ko def loolee dara newu ci nit day tabax juma ku tabax juma ji ñu ne diw loolu dara nekku ci maa ngi gis benn vidéo bu ñuy wone ku ñuy wax El Hadji Ibrahima Silla ca Gambi wallahi bi ñu wonee li muy génne ci dogal koor da ngay yéemu saaku ceeb bi da ngay tegale rek ba sa bët yem kenn xamut ñaata la yaa ngi dégg loolu lépp moo jagleel ko fuqara yi nekk Gambi loolu mbokk nit ñi xam ko dara newu ci ndax loolu nit ñi dañ la ñee bëggoon na def lu mel ni li ngay def loolu mi ngi noonu loolu kon moo tax borom bi ne sirran wa alaniyatan borom boobu it subhanahu wa taala ne heure bu leen nit defee lu bon lu baax lañ koy jañee te loolu muy jaamu yàlla gi bokk ci jaamu yàlla yi gën a jafe ci jaamu yàlla yi mooy nit ki tooñ la yemoo ci baal ko rek waaye yow nga jël lu baax yow defal ko loolu suñu borom mu ne wa ma yulaqaaha illa alladina sabaru wa ma yulaqaaha illa zu xazin azim ñi muñ ñoo mën a yegg ci lii ñi nga xamee ni nii tamit ñoo ca mën ñooy mën a yegg mooy ku yàlla may cër ku yàlla may cër rek yaa man nit ñi lay tooñ yemoo ci bal leen waaye yow heure boo amee lu baax jox leen mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala yëpp daal di ne ñii day nga xam ne ñoo melokoo melo melo melokaan yu mel nii borom bi subhanahu wa taala nee na dana leen ñel uqba door mooy mujj kër ga mbokk nañu xam ne kër dëgg mooy kër ga ngay mujjee kër ga ngay mujjee adduna da ngay am fooy jaar rek yow foo cosaano waalo doo ma fa jógee dëkk naa Louga dëkk naa Thiès dëkk naa Dakar dëkk naa fi xam nga fooy mujjee mooy imma aljanna wala imma safara mi ngi noonu léegi da nga dégg journaliste naan il a gagné dernière demeure am jàpp ne xabru mooy dernière demeure léegi xabru jaarukaay rek la gis ngeen xabru jaarukaay rek la moo tax suñu boroom bi mu ne alhaakum takaasur hatta zurtumul maqabir jëkkante adduna itteel na leen ba ngeen dem ziyaara xabru ya benn màggatum arab bu déggoon arab ne aji ziyaar day dana mosalem ay bagage am dem am déet da ngaa ziyaar rek da ngay dem kon bàmmeel dañ koy ziyaar rek ziyaar ba nag mën naa duré mille ans deux mille ans ila axiri kenn xamul ñaata yéen ci yàlla nu wax kenn xamul ñaata yoon la def ñaata at la def ci bàmmeel uqba daar lan mooy këru ñu mel nii lan mooy seen mujj kër suñu borom mu ne jannaatu adn lan mooy jannaatu adn yeneen ci bi alei salaam nee na jannaatu adn yàlla ko bind ci loxoom yàlla moo ko bind ci loxoom birigi or ak xaalis la ko yàlla defere waa gars yi kër goo xam ne or ak xaalis lañ ko defere meublé lu muy doon mi ngi noonu muy jannaatu adn bi nga xam ne nii moom la mooy xaar julit ñi suñ borom nee na bu ñëwee dañ fay dugg ñook ñan ñoo ko baax ca seeni baay ak seeni soxna ak seeni doom waaye mbokk nañu xam ne suñu borom waxul ñoog seeni baay ak seeni soxna ak seen doom ne dana ak ña baax am déet ñan ñoo ñu baax suñu borom mbokk ki baax ci yàlla mooy ki nga xam ne dafa am ngëm gu sell cay jëf lu baax yéwénal na digganteem ak boroomam yéwénal digganteem ak moroomam lii mbokk mi ngi nii su ko defee yeneen ci yàlla nu wax de àjjana la jëm ndax soxnaam dina dugg déedéet doomam jën laboon nag déedéet luut àjjana la jëm ana soxnaam ma nga safara ibrahim àjjana la jëm ana baayam ma nga safara ila axiri ila axiri kon mbokk li ñuy gëm ñun bokkul ak noonu jàpp nañ ne suñ caam ku mu jur rek mu jur mu jur ku mu jur ba ilaa yu mi diin non seulement ñooñu waa waa àjjana lañu waaye ku leen yaakaar sax far dem àjjana am déet loolu lañ gëm su la benn mbokk bu ñu jege dafa am benn tudd bokk ci famille yu mel noonee gaa yi ñëw di tudd si daal dina yéen famille bi day na seen xel dal dereti suñ caam famille bu mu dugg famille ba yépp seen yaram aramal na safara yaa ngi dégg mbokk xoolal ma lii waaye mbokk mbir mi demul noonu suñu borom dana wa man salax moo tax suñu borom ne walazina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imanin alxaqna bihim zurriyatuhum suñu borom nee na ñi gëm ca seen njaboot ga topp leen ci ngëm googee ci al iman buñ ko booyalee day yóbbaale jëf topp leen ca gëm ga ak jëf yu baax ya daañ leen boole seen njaboot ci àjjana ya bàyyi góorgóorlu na ba dem firdawsil aala ana doom ya ñee nga vingt quinze trente ana soxna ya ñee nga cinquante quatre vingt dix ana frère ya ñee nga nangam nangam suñu borom yàlla ci mbaaxam famille bu nekk dana jël ki gën a kawe daraja jël ñi nekk ci suuf yépp yóbbu leen bu dee ànd nañu dugg biir aljanna ndax ñun ñëpp dañoo baaxoon man salaha bu ko defee nag borom bi subhanahu wa taala ni malaaka ya daan dugg ci ñoom di duggee ci bépp bunt àjjana juróom-ñetti bunt la yeneen ci bi alayhi salaam wax ñu ci loo xam ne lu dal xel la lu ñu yaakaarloo dana amul benn jërit buy jàpp sellal njàppam yëkkati xool ci kaw daa ji ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nee na ku mel noonu am na visa bu koy permettre yowm al qiyama mbooleem buntu àjjana yi fu ko ci neex lay duggee yàlla na yàlla boole ñu ca ñu ngi noonu yonent bi sam nee na am na ca bunt bu ñuy tudda rayyaan nee na ñi doon woor rek ñoo fay duggee loolu it mi ngi noonu su ko defee kon malaaka yi di dugg di leen sargal di leen ñaanal mucc mooy yéen day mucc ngeen lépp luy loraate teggeeku ngeen ci loolu lan moo ko waral ngir muñ gi ngeen muñoon ak a baax kër gi ngeen mujjee loolu it muy wone na mbokk julit diini lislaam léppam muñ la jaamu yàlla neexul da ngay muñ ngir ëllëg nga noppalu waaye koo jàpp ne ne da ngaa bëgg a jël àdduna def koog noo sukaay mbokk bu ëllëgee coono rek la lay jural mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
jazakallahu xayra suñu borom kon mu ni walladina yanquduuna ahda allah ña nga xam ne nag dañuy firi digub yàlla ba min baadi misaaqihi gannaaw bañ ko fasee wa yaqta'uuna ma amara allahu bihi an yuusal di dagg la yàlla santaane woon ñu jokk ko wa yufsiduuna fi l ard di yàq ci kaw suuf ulaayika lahum llaana ñoom day dana leen ñeel ak rëbb walahum suu daar dana leen ñeel gën jaa bon ci kër ya allahu yabsutu risqa liman yashaau wa yaqdir yàllay tàllal wërsëg ñeel ku ko soob di ko gàttalit wa farixu bilxayaati dunia ñoom ñi ngi dégge ci dundug àdduna gi wa ma alxayaatu dunia fi l axirati illa mataa doonte ne dundug àdduna nekkul ci dundug alaxira boo koy méngale lu dul as mbànneex su ndaw rek wa yaqulu allazina kafaru yéeféri it ñi ngi wax ba tey lawla unzila alayhi ayatun min rabbi ana lu teewoon ñu wàcc ci moom aaya bu bawoo ci boroomam qul inna allaha yudillu man yasha neel yàlla day booy sànk ku mu neex wa yahdi ku ko neex wa yahdi ilayhi man anaab mooy jubal jëme ci moom it képp ku jeng jëm ci moom alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah mooy ñooñu nga xam ni dañoo gëm ci seen xol ya di dale ci fàttaliku yàlla ala bi zikrillahi tatma'innul qulub am ndax du ci fàttaliku yàlla gi rek lay dale la nga xam ne mooy xol ya dañu noonu mbokk alquran la suñu borom def téere boo xam ni dafay nekk en contraire lépp lu mu la wax rek wax la contraire am moom mi bind guddi bind bëccëg bind àjjana bind sawara tëralal na doomu aadama yi ñaari yoon wa hëdaynaahu najidayn yoon bi mooy ñu jëm àjjana moom lañ jàng sànq mu wax ñu ci juróom-ñetti melokaan amma yoonu ñu jëm safara nee na mooy ñi nga xam ni dagg nañ kóllëre ga doxoon seen diggante ak seen boroom dagg nañ la yàlla santaane woon ñu jokk ko te doon ca mbokk ga la ca diggante yonent ya la ak yu deme noonu mooy bépp chrétien bu gëmul yonent yàlla muhammad dagg na la yàlla bëggoon ñu jokk ko mi ngi noonu suñu borom mu ne ñii rëbb dana leen ñeel ak rëbb mooy soril gañ lay leen di soril yërmaande yàlla kër ga gën a bon ma nga leen di ñeel muy allah muy safara gannaaw ba it suñu borom wax ci nattukaay yi lu bari ci yéeféer yi ak nit ñi xamul dañuy jàpp ne wërsëgu yaa day wane ne yàlla daa bëgg ab jaam gàtt wërsëg day wane ne yàlla daa suufeel ab jaam suñu borom mu ne nag demu wuru noonu mooy tàllal wërsëg ñeel ko ko neex na doon kooku saay sayle bu mel ni firaawun saay sayle bu mel ni qaaruun ak ñeneen ñu mel ne ñoom wala mu gàttal ko ñeel ci ku ko neex ñoo xam ne nii amuñu ngi noonu yàlla ngi ñu wan yeneen ci yàlla Muusa mi ngi ànd ak xadir ñu dem ci benn dëkk di leen ñaan lu ñu lekk rek gaay waa dëkk ba bañ gis ngeen loolee kon mbir yi nattukaay yi du loolu suñu borom mooy nattu nit ngir xool nan lay sante mo ci alal jëm koy jox jurit lam yee féer mooy nattu nit ci ñàkkal ko alal di xool naka lay muñi bu dee ne ab jurit la mi ngi noonu borom bi nag nee na ñi ngi dégg dundug àdduna fàtte àllaaxira kër kër guddeeg bëccëg di dajaleel àdduna di ros ci àdduna mu ne cay bu ñu xamoon dañu xam ne àllaaxira day boo ko doon mingale ak àdduna day doon bànneex su ndaw ci temps bi ak ci xéewal yi ba ko àdduna ba ko yàlla bindee ba tey am na temps bu muy yem àllaaxira amul temps bu muy yem loo xam ne nag c'est infini ak loo xam ne c'est limité loolu kon day wane na àdduna temps bu gàtt la amma nag bu ñu xoolee xéewal bi jàngi ngeen ko ay yoon rasul sallallahu alayhi wasallam nee na xéewal yi nekk aljanna ak mboolem yi xéewalu àdduna mi ngi mel ne yow mi sampoon sa baaram ca géej ga di taq sa baaram mooy xéewalu àdduna la ca des moom mooy xéewalu aljanna ma tax kon dundug àdduna lu néew la donte ne li ëpp ci nit ñi moom la ñuy kër këril guddeeg bëccëg fàtte alaxira yéefir yi bokk na lu ñu leen wax waaw muhammad mii kee mu ñu indil kawteef bu ñuy xamee ni ci yàlla ko yónni ca mooy kawteef yéen tànn ñoom suñu borom nag ne déedéet yàllaay sànq ku ko neex du jubal ci moom képp koy dellu si ci moom ca mbokk suñu yonente alayhi salaam suñu borom dalal ne xelam nee na ko wallahi bu doon tane ne dama dekkal ñi dee woon ubbi bunta asamaan yi wa inna wa xasharna alayhim kulla shay'in kubula lépp loo xam ne ni laaj nañ ko ma jox leen duñ ca teg lu dul ab jabarkat nga rek xamal nag ne dara la sa xel yàlla moom mooy sànq ku ko neex ci maadu teem mooy jubal ña bëgg a jub jëm ci moom moo tax mu ne man anaab mi ngi noonu sunu borom jalla wa ala yazidullahu rizina ihtadaw huda borom boobu nag ne ñooñu mooy ñan mooy ñi nga xam ne seen xol day dale ci zikrullah ca mbokk xol munta dale lu dul ci zikrullah nga la waay julit xamal ne yaa ngi trésor boo xam ne kenn amu ko ci kaw suuf ku dul yow yonent bi alei salaam moo ko wax ajaban li amri lmumin inna amruhu kulluhu lahu xayr nekkal milliardaire nekkal buur nekkal lu mën a doon àdduna li fi nekk ci ay nattu dafa bari du nattu yépp la nguur mën a faj du natt yépp la alal mën a faj amma yow julit yow lu la mën a dal day neex nga sant yàlla mu naqari nga muñ muñ gu rafet gëm ne yàlla lu naqari mii moo teg su ma ko muñee mi ngi ma ciy xaari xéewal yu rëy rëy rëy doom ji deelaam alal ji yàqulaam lu ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun yàllaa ñi moom ci yàlla la ñuy dellu lépp lu muy ragal ci kaw suuf lu muy wax la hawla wala quwwata illa billah day xam ne dara du ko dal lu dul loo xam ne dafa jóge ci yàlla jalla wa ala hasbuna allah wa ni'mal wakil lii mbokk julit rek moo ko am amaa demal ci yéeféer ya su problème amee nu ñuy def drogué wu su problème amee nu ñuy def rébélé wu jël tiire rey rey rey rey rey parce que jàpp nga ne société bi dañ laa tooñ wala boog nga far rey sa bopp ñaata nit ñooy xaru ci dëkk yéeféer yi kenn mënu la ko wax loolee lu tax amuñu luy dalal seen xol amma julit moom pauvre nekk ci néegu ñax di añ reer ak sombeeg lu kenn xamul maadaama am na yàlla heure bu xelam naqaree mu daal di dellu ci yàlla tudd yàlla ñaan yàlla loolee doon loo xam ne du dalal xelam lii mbokk mooy trésor bi gën a rëy bi nga am yàlla na yàlla dalal suñu xol adduna ak alaxira may ñu aafiya fi dunia wal axira wa sal allahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ndax waa ji jàppoo dafa dégg mu ne ñàkk wax a gën ba pare mu dégg ñu naan booy raxas loxo bi lii ngay wax booy raxas tànk bi lii ngay wax mbokk loolu suñuy xalaatkat rek ñoo koy wax waaye njàpp daal la ca am mooy bismillah jeex na jàpp bismillah rek ca am soo jàppee ba pare nga wax zikr boobu ma la wax أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمنا نجد الأذكار برم خم خميد وقت اللهم جلني من التوابين وجلني من المتطهرين إلى آخره وإذا على كل حال نار يوم جابك بوي جاب بسم الله غي وقت بير جاب مي أمول لنشي وقت soo jàppee ba pare nga tudd baatu seede yi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah ah dama ànd ak imam taaye naa ba sama taaye jeex imam sulma lugul foofa loo man ci ñaan ngay wax man ngaa continuer say ñaan man ngaa continuer ay astaghfirullah lépp loo xam ne nii ci ñaan rek nga xam ko loolu ngay wax ndax taaye moom soo jullee ci yonent ba pare ba baa ngi sëlmal place ñaan la tant que imam sëlmalul bul noppi même boo doon wax astaghfirullah rabbi ighfir li rabbi arhamni rabbana atina fi dunya hasana mooy daal ñaan boo xam da nga koy wax ba baa imam gi sëlmal mi nga noonu wallahu subhanahu wa taala ah ki su joo ci yonente bi alayhi salatu wasalaam dañu doon wax ne bu ngeen rukkoo na ngeen màggal seen boroom bu ngeen sujjootee na ngeen baril ay ñaan dana dëppoo lool ñu nangu seen ñaan ci sujjoot ndax jaam fi mu gën a jege boroomam mooy fi mu sujjootee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam ko juróom-ñetti bunt yooyu mu ne dugg aljana ci juróom-ñetti bunt yooyu naam maanaam ñu la waxee yaay tànn wala mën nga dugg juróom-ñetti yëpp ni ñu koy ràññee daal ak différence
ndax juróom-ñetti bunt yëpp daan ci duggee déedéet yow yaa cay tànn bunt ba gën a kawe bunt yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñi nga xam ne nii dañoo ñëw aljanna am na bunt bu waa jihaad yi duggee bunt bu waa ña nga xam ne ajjey duggee bunt bu koor gay duggee ila axiri abu bakarin saddiq na ko waaw ndax dana am koo xam ne daañ ko woo ci bunt yooyu yépp mu ne ko axa kay ci yow ca ngay bokk loolu boo ko bëggoon a dégg tey da ngay gis ne boo demoon tey istaat istaat am na lu ñuy tuddee virage nga xam ne gone yi fay ay cent franc ci deux cent fa la ñuy jaare am lu ñuy tuddee découverte nga xam ne borom téeméer yi yooyu fa la ñuy jaare am fu ñuy tuddee couverte am ñi nga xam ne borom cinq mille yi xëy na fa la ñuy jaar am lu ñuy tuddee loge loge moom il faut ngeen di cinquante mille wala cent mille mais tey waa ji am billet bu gën a kay masal na kenn billet couverte su demee découverte kenn du ko dàq ki am billet loge bunt yooyu fu ko fa neex lay duggee waaye nag loge lay duggee kon it kon ku nekk sa grade nam kawee noonu ngay mérito duggee looloo tax ba am na ñoo xam ne bunt yi fu leen neex duggi lu tax mooy bunt ba gën a kawe am nañu priorité pour dugg fa looloo tax ñu wax loolu waaye nit ki du dugg fii génn fii du addu àjjana moom boo xisee ba dugg du fa génne ci waaw mi ngi noonu waaw ñu mujj ci mbokk bi rek waaw ah.
mais dama mos a dégg benn borom xam-xam mu ne suñ fi jógee mun nañ ñaan mais ñaan bi bu tàmbalee rab na ko mën a xam lu ko waral
waaw loolu day ndax kiy ñaan ci sujud du wax rabbana masalan ki naan rabbana ci naa fi dunia xasana ñu ne doo wax rabbana ndax boo waxee rabbana da ngay jàng alquran loolu day xalaat da rek waaye it ne la chaque ne nit ki mën nga wax rabbana parce que yow jubluwoo jàng alquran da ngaa jublu ñaan suñu borom nee na am na samay jaam yu may ñaan buñ may ñaan dañ naan rabbana atina fi dunia xasana ñaan googu nag yow ngay ñaan moo tax nga koy ñaan ci sujud kon yow jubluwoo ci jàng alquran mais la yàlla saxal ne ñoom bu ñu ñaan dañ naan rabbana atina fi dunya hasana loolu taxe bi nga sujutee nga naan rabbana atina fi dunya hasana donte ne ñoom dañ naan allahuma rabbana wala allahuma nangam waaye la shakk ne boo waxee rabbana it yow su jubluwaay bu jàng alquran su jubluwaay mooy ñaan loolee dara nekku ci wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in